ak ni ko nee na Alioune dafa changé waaye moom it damaa gis ni dafa changé xam nga lu tax dafa changé sëñ Saliou damay daaneel danga may may man sànq bi ngeen di wax damaa ni tekk di leen lii ma bëgg a wax nii dangay gën a guddal rek parce que dinaa ko wax dinaa ko wax est-ce que doo ma bàyyi tamit est-ce que doo ma bàyyi dangay gën a guddal temps bi rek est-ce que doo ma bàyyi te est-ce que doo ma bàyyi dangay gën a guddal parce que dinaa ko wax ah, dama ni y a de cela quelques temps Assane mi moo doon taxaw Ousmane Sonko du mus nek président moo tax sànq bi mi cité nee naa ko daanaa da de Thierno Alassane parce que bu le Sénégal ça sama parti je pense que Sénégalais un ànduñoo ak Ousmane Sonko kon l'a waro and ak Ousmane Sonko suné le Sénégal ça sama parti. mais il a pas dit que Ousmane Sonko est non excusez non excusez-moi. oui mais il a pas dit que Ousmane non mais attendez rek. sénégalais yëpp ànduñoo Ousmane Sonko ak Bougane ñi mu fi cité laa wax sénégalais yi am na yeneen sénégalais yu àndax ñeneen et pour vous dire une chose par rapport au stade bi nga xam ne à chaque fois bu fa sénégalais yi di dem bi réalisation président Macky Sall bu ñu demee ba ci biir stade bi dugg tamit réalisation président Macky nga mel ni yaa ngi biir Angleterre di seetaan excusez ma rek baal ma rek ñun egguñu foofu bu ñu campagne ngeen xam ne mm, lépp mm, dëgg la ndax mm, suñu bilan rek doy na campagne mais li ma bëgg a wax mooy que ni alhamdulilahi rabil alamin bi sénégalais yi di déplacer wu par avec le terre dem dugg ci bi stade bo xamni da ngay yaakaar ne yaa ngi San wala yaa ngi feneen au Milan wala fenen ak fenen xam nga lan la bëgg wax a wax foofu sénégalais yooyu di dem provisoires sénégalais yoy di dem fofu devant ce stade il y a des abris provisoires même aux États-Unis il y a des pauvres là-bas même aux États-Unis même aux États-Unis d'Amérique bi nga xam ne y a de cela deux cent ans y a des abris provisoires y a c'est pas vrai parce que yonent si yàlla Muhammad waxoo dëgg ban dëkk ban dëkk ban dëkk waxoo dëgg ban dëkk. y a des SDF là-bas en France y a des SDF là-bas bu ngeen ma bàyyi ba terminer. waxal dëgg bi les gens non non c'est pas vrai. abri provisoire. allez c'est toujours bien. gën a am nañ lay wax dañuy wax abri provisoire école lañ lay wax loolu amul franchement c'est pas sérieux quoi. on parle d'abri provisoire. s'il vous plaît. aux États-Unis. très bien on est d'accord on est d'accord

seen rôle foofu rek non dugg ci ay ay ay ay kaas. waay loolu exactement la même chose waaw yooyu quand on parle d'abri quand au Sénégal d'abri provisoire. Ah, ah. ici on parle des d'abri provisoire ah, non non mais autant mais mais c'est exactement

tu ne parce que dama dama nekkoon foo xam ni. di expliquer rek par rapport ak li mu doon wax tout à l'heure que sénégalais yi ñoo dem sonkoriser le match du Sénégal contre l'Algérie. Mhm. c'est pas tous les sénégalais c'est un échantillon des sénégalais. Ah, parce que man maa ngi woon sama kër dew ma. te su ma demoon ba si stade ba du ma yuuxu Sonko peut-être dinaa ne Adji Sarr namm na leen comme ni ma gisee si benn stade ñooñu tamit ay sénégalais lañ. nawetaan la woon xale yi di supporter ASC mbooloo la je sais pas gis naa ko daal à travers les réseaux sociaux ñu naan Adji Sarr nam na leen gis nga loolu du loolu mooy doxal réew mi ñu dem stade dem Malibu dem au stade du bari wala ñu dem feneen di yuuxu naan Sonko mm. namm nañ la wala dara boo leen ko nammee da ngeen di dug jël oto péage bee ngi fi maître Abdoulaye Wade def na ba jam ñaajo président Macky Sall eggale na ko ba Touba ngeen jël ko ngeen dem seeti ko leneen li ma bëgg a wax li jëmale Sénégal mooy li nga xam ne moom la président Macky Sall mais c'est sonkorisation dinaa ci wax loolu moom kenn mënu ma teree wax dañuy gën a guddal débat bi rek mais dinaa ci wax li ma bëgg a wax mooy que li jëmale Sénégal kanam mooy comme tout à l'heure li ngeen def may nekk di liste les réalisations du président Macky Sall ngeen ni toujours am nay abri provisoire loolu ñu jéem a xool fu mu yam rek moom fu nguuram yam fu nguuram yam rek keneen ñëw ah. parce que ah. même s'il y a des abris ah provisoires loolu kenn du ko nié de il y a des abris provisoires mais il y a des efforts qui ont été consentis par l'État du Sénégal avec la magistrature euh, du magistère du président Macky Sall gis nga nit président Macky Sall man mi far ak mom ànd ak depuis 2008 nek xalé bu touti di ànd ak moom su ma 12 ans yim fi toog régler na problème sénégalais yépp damay wax luma ma munta États-Unis d'Amérique la len di wax y'a plus de 200 ans ñoo ñu gëna a le fouf, démocratie gën ñu le puissance c'est la première puissance mondiale. dama ni bo fa duggé biir États-Unis tu vas trouver des pauvres là-bas kon Sénégal bi nga xamni barki Dembo Ndiaye lañu juddu. Abdou Diouf def fi mom ak Senghor 40 ans Ablaye Wade ñew def 12 ans le président Ablaye Wade. président Macky Sall ñëw def fi 12 ans war a dem bàyyi fi keneen. ñëw bu fekkee ni président ab Macky Sall dañ si 12 ans am yi matal na lépp waaye il a beaucoup fait ñun li ñuy glorifier woo. tout à euh, sama frère bi daf ko wax bu gëm sa bopp. mu ni moom en 2012 il était avec le président Macky Sall parce que daf ñu serviroon benn discours bu extraordinaire mon frère ñun ñi nekk di àndax moom di liggéey ba léegi xam nañ ni bu baax ni li mu diggee woon ak sénégalais yi matalul lépp parce que munta nekk. da ngay am sa yéene waaye il a beaucoup fait pour le Sénégal te yaakaar naa ne ñii dem bitim réew di ñëw yéen ñi nekkoon bitim réew xam ngeen ni boo leen demee bitim réew ñëw man yàggul torop mais bi ma demee terre bi ma jël pour dem Strasbourg terre boobu noonu terre boobu non non ah, mais mais mais économie on parle d'économie tout à l'heure Aliou parlait Alioune parler de de mission nous qui sommes parlementaires suñu les budget ñu examiner contrôler def flippes ba pare l'état du Sénégal gis nga beaucoup de bëggee Sénégal def ko benn point isolé bokkoo fenn maanaam soxlawuñu kenn loolu mënta nekk Sénégal li muy am ci ay impôt recette fiscale mënul tax mu dundal ay dépense am abri provisoire dont vous faisiez allusion tout à l'heure du recettes fiscales fiscale Sénégal di am maintenant le Sénégal a besoin des autres puissances pour que nous nous ñu jàppale lay ak lu may la don lay don lu mu mënti on a besoin des autres pays pour que ñu mun jappalé jàppale ci bi biir ñu mën réaliser li nga xamni mom mo président de la République sur France 24. comment Mané pour ñëwaat ci interview président de la République sur France 24. bi ñu ko posé cette question par rapport à Ousmane Sonko ba mu tudd fa waxu complicité euh, euh, avec des forces occultes loolu laa wax naka lañ koy comprendre. wax na nous wax de France 24 En na ko bi muy recevoir ces militants aux États-Unis

te mhm. xamuñu état nan lay fonctionner gis nga <laughs> même dans la politique da ngay nek ak say morom ngeen bokk même parti mësuñoo def administration yow nga def administration doxalin yi ci biir parti bi sax du doon benn loolu c'est la même chose que les politiciens que ce soit du pouvoir que ce soit de l'opposition ku ci jot état la nga doon wax démb <laughs> ak li ngay doxale tey mën naa diamétralement opposé parce que nag am réew du caaxaan te nag du ay xale yuy cëppi cëppi ñoom ñooy ñëw ñu jox leen suñu Sénégal gis nga Sénégal gii Aliou wax na ko tout à l'heure réewum Seydina Limaamu la alayhi salaatu wa salaam réewum maam Borom Touba la réewum maam El Hadj la maam Baye Niass ak keneen ak keneen ak ñeneen ak ñeneen ay mag yu baax ñoo fi tëdd dama ne ku toog États-Unis gee di daggal ay ndey suñu kilifa yooyu wala suñu kilifa yi nga xam ne c'est la première institution de ce pays. wax dëgg neex yàlla bu la les américaine fexe ba nga duggaat ci biir réew mi boo meree Macky Sall yaa ngi ci erreur parce que président Macky Sall mu ngi xëy chaque jour di xool problème mu sénégalais nan lay fexe ba. kooku c'est un homme social. nen ne fii laa ko waxee woon le président Macky Sall. c'est le champion du social. Mm. tout à l'heure kii dafa wax ni la pauvreté. oui mais ma Daniel ak pauvreté. sauf que est-ce que le champion du Sénégal a a a baal ma ne ne ma Daniel ak pauvreté le président Macky Sall gis nga buñ waxé bourse familiale am na ñoo xam dañuy ré pourtant le président Bougane kii mi ngi koy wax tout à l'heure mu ngi dem di fekk ay dëkk yoo xam ne amuñu sax poste de santé mu defal leen ko loolu jarut a xeeb gis nga poste de santé boobu nga naan ah kii de montant bi mu ko defaree billahi ña fa dëkk soo xamoon niñ ci amee soxla mais 25000 francs yi ngay xeebal famille boobu noonu ñuy jox 25000 amna na ñoo xam ne mosuñoo xam xaalisu Sénégal ndegam ñoom ci lañ bokk bañ lañ ciy sédd liggéeyoo xëyoo wàccoo ñu jël ci xaalisu Sénégal xaalis boobu président di jël di ko jox néew di doole yooyu nekk di dans tout le Sénégal nag sans exception et la plupart du temps surtout dans la région de Dakar dans le département de Dakar bi nga xam ne laa gën a maîtriser maire yu bëri bi ñuy def bourse familiale ànduñu woon ak président de la République kon ñooñu doon tànn nit ñooñu noonu à travers les communes les communes. nan le président Macky Sall meuna tané nit ñooñu ñu nek ay nitam. gis nga dafa nek lo non bal ma rek campagne ma nee campagne ma dama fi dégg mot pauvreté. oui ñu président Macky Sall lutte contre la pauvreté. je suis pas d'accord par rapport à expression Je suis ma andi la juste les bourses familiales il y a la SEMI, il y a autre chose mais aussi il y a des financements c'est pour accompagner les gens yi nga amuñu doole c'est loxo jëmul pour ñu accompagner la ñu a maintenant matal que yalla mi ko yor sax le ko ñep suñu borom mom que yor yeb mais joxul ñep suñu dit que yi sax tollowul kon président Macky Sall ñun liñ ko mëna wax nous les Sénégalais en général liñ ko vous wax parce que pendant ces 12 ans là il a eu à faire ce que ses prédécesseurs pendant 50 ans. Alors la question c'était par rapport à sortie au président de la République parce que euh, on s'attend peut-être Nini, sur le le en tout cas euh, une élection inclusive na mais euh, peut-être de l'autre côté am ñu que éliminer un potentiel candidat parlant de force occulte comme je l'ai dit tout à l'heure depuis 2021 on nous fait ressortir cela et pourtant rien, on ne voit rien. Donc d'une part, est-ce que, vous pensez, aujourd'hui euh, euh, que nous avons en 2024 euh, une élection inclusive Man déjà, je ah, tout mhm. par rapport à l'élection dans en tout cas dans la transparence et dans la quiétude. Mhm. Élection législative idéale. Oui. avant élection de nous. avons élection. Oui. élection. Tenir normalement. élire nañ ay député dem nañ assemblée nationale gëm naa ne